dañuy ziare kilifa gi sëriñ Mouhamadul Mountakha te di ko sant di ko ziare Seydina Abbas suñu bàyyi Abbas di ko ziare itam sëriñ Basiru mi nga xamante ni bii moo ko fi wóotu ibnu Cheikh Ibrahim ziare sëriñ Moustapha Hafsa njabootu borom daal yëpp ak boppam bàyyi Abbas ndax ñun ñëpp ko bokk bëggoon itam rek ginnaaw bu ñu sante Serigne Moustapha Hafsa ba noppi di jotal suñuy cant kilifa gi di Serigne Mouhamadul Mountakha ci ay yéeneem ak i jëfam dafa fekk ni nag bu la ku toll ni moom wanee lim la woon jëfal la lim la jëfal te nga mën koo lim bu dee ci ab lim nga mën cee lim benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn ba ci juróom ñaar donte do meuna a wax lépp itam ndax dafa bari barkeelu yi ma jox kurus gi ci la bok ci la xamee sax ndekete kurus yag na fi yàgg na maa am kurus na nag kurusam gi nag bi mu ci barkeelu yi ma jox euh da naka ci liñuma ilham ni ndekete fanweeri ñett ak per fanweeri ñett per yu njëkk yi ba nopi sédd bi ñëw taxaw modi iman yenen fanweer ak ñett yi ci topp sedd ñew taxaw moy islam yenen fanweer ak ñett yi ci top ñew di ihsan lolu Serigne Ousmane lu iman la ni hmm. tax ñu bayyi ba mu jox ma ay barkelu kurus bok ci ñu may soga ilham lolu hmm. et kurus yàgg bi hmm. ma yàgg kurus ay cant gu dañ koy euh, ginnaaw bi ñu ko seddalee malayka yi dañ koy seddal jullit yëpp ak Sénégal yëpp di ñaan Sëriñ Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi ndax itam nag bu ko yéenee defal murid yëpp itam du ko man ndax murid yi dañoo bari mënul kenn ku ci nekk mu jox la valise boo xam ne lu nekk ca nekk <laughs> waaw boo xam lu nekk ca nekk waaw waaye nag juróom ndem juróom moom day symboliser alxeyri di symboliser xam sa salawaat moo tax juróom yi rek <laughs> laa ciy tudd waaw muy si jaabe beeg maraakis yeeg jàllaab yeeg gëtt yi laj ko lañ yeeg kurus geeg ak yee ca des nga mën cee gis spirituel mën cee gis temporel kon daal li muy ñaan moom muy muy mu yàgg fii ak it la ma ko waxoon rek ci sunu jataay jota sa jataay kilifa doo ko nettali ndax ne maam moom rek la woon kenn ñetteelu nu waaye dara nu ko ñaanal mu yàgg fi te wér rek te lépp lu nu man ci jëm ko roy jëm ko roy ci ay teggin ak worma ji nga xamanteni mom la ko ko tedd ci baax ay teggin ak i worma hmm? ñepp ko xam ci mom waaw ay teggin ak worma dëgg yàlla cofeel nag moom cofeel la rek sama cofeel ak mom nak sama kilifa moko gëna renforcer muy Serigne Moustapha Hafsa kon cant gi moom moom ci <laughs> ci moom lay njëkk a jaare te hmm. itam nag di sant ñep rek di sant njabootu gu tedd ki yeb euh, te la sëriñ Muntaxa wax rek ci mbokam ya nga xamni mo leen yilif ñom ñep waye dañu leen ma ngi ak yeen di doon seenu jàmm mus nga gis lool di doon seen di doon di doon seenu xadam te ku ne xam baatu xadam limi ar firi ci arab ñun tamit non koy wax fi ci daal waaw fii ci daaru waaw di ko seddal itam suñu kilifa Serigne Moustapha sa di ko seddal itam xalifa bu bees bi di Serigne Bassirou Anta Niang fas yéene nekk rek waaw fas yéene nekk xaadamum ñëpp rek <laughs> loolu moom eh, defe naa ne kàddu yooyu mu jibe fii ci kër sa turandoo gi pàkkam bi mhm. di Seydina Ousmane nga xam ni donte maam Cerno Birahim dawul laal baatin ndax nee yi fi jàmbur la ko tedd ki moo ko dénk te du ko laal mhm. daan na daan na ko laalloo suñ ma daw balla daan ko laalloo sa turandoo <laughs> salaam